borom xam-xam macha allah koo xamante ni Sénégal kenn dootu ko présenté ti kenn dootu ko présenté ti euh, li nga xamante ni moom mooy téléspectateur ak internet yu leeral TV muy docteur Ahmed Khalifa Niass docteur salaamaaleykum. waaleykum salaam. ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, xam naa ni euh, dañuy dugg rek ci ci ci waxtaan bi laaj bu njëkk bi mooy docteur lan la yàlla wax ci tuuma jël tuuma teg ko ci ndodd doomu aadama. loolu moom lu ñëpp xam la donc euh, tuuma bu dee la taxa wax mooy ñi am ku ñu tuumaal euh, njaaloo njaaloo boobu dafa am yu ko jege tey jël atte njaaloo bokk na ca alxalwatu ma al marati al ajnabiyati mooy wéet fu ñu tëj ak jigéen te fekk kooka di barami di barami jabar bu dee góor la atte nag njaaloo ci lislaam góor gu am jëkkër góor gu am jabar ak jigéen ju am jëkkër ñoom ñaar ñoo bokk atte tey jii jigéen joo xam ne danga nga ko fekk mu tëju ci néeg hmm. tey bërëm jëkkër hmm. duñ laajte def am na walla def amul d'accord dañ koy àtte àttey ku def ndax dafay nekk ci muqaddima jiital jiital préambule hmm. waaw ndax day diggal sikk te bu nekkee góor la su euh, fekkee ne ki ñu ki ñu tuumaal loolu jigéen la dafay may euh, jëkkëram mu leaan ko maanaam mu dem moom ca jàkka ja ñu rëbb wonte su fekkee ne mën nga ëmb doom ja jëkkër ji mën naa wax ne juru ko te du ko doon d'accord le doomi jabar la mhm. te lii àtte ku jigéen ki mooy àtte ku góor ki mais man li may wax du affaire li nga xam ne yoon a koy seet. d'accord di ko setantal loolu man sama yoon niwu ci. d'accord ñun ñëpp doyloo nañu ñi nga xam ne yoon a leen teg ñu waat xam am jàng xam-xamu. Mhm. gëstu di ko gëstu. Mhm. waaye xam nga. du euh, ma dem foofu. Mhm. ma li may wax. ndax wax dëgg yàlla man Ousmane Sonko sama moroomu doom la am naa doom sax yu ko mag. d'accord. te noonu laa ko jàppe mosum ñoo jàkkaarloo nii mais euh, man am naa sama doom yoo xam ne Salif Sadio mii jiite euh, xare ci MFDC. mooy seen maam direct. fii ci kër gi boo jàllee côté bi am na fi aile boo xam ne Casamance la tudd. ah waaw euh, équipe bu équipe bu Casa mooy sama équipe préférée. d'accord mieux que ça maa ngi fekk lettre jamakun boo xam ne dafa bind ma bind yoxoon ko frère bo ñoom ñaar ñëpp génn nañu àddina muy euh, Bertrand Diamecoune mu indil ma ko mu ne ma def naa la ngay conseiller MFDC. d'accord donc ci côté boobu on n'a pas de problème nekkul nekkuli nit koo xam ne dafa ma antipathique xam nga am na nit dana gis nit du ko du ko sopp du ko sopp waaw loolu itam nekkul mais man damay wax ne mhm. kilifa dafa am lu ko wàcc ndax li ñuy wax maison close mooy kër goo xam ne dañoo tëj bunt yi du ko mu neex nga dugg waaw nga dem yow di fa sàkku jigéen joo xam ne di sa soxna di la bësal te say soxna ñoo la war a bësal kooku rafetul ci lislaam rafetul ci moral ndax bu leen fàtte ne États-Unis d'Amérique muy réew mi gën a démocratique mm-hmm. bu jéemoon nañu wàcce président bi pour ne ndax wax na ak secrétaire am wala wéet na ak moom ci bureau am wala déet. d'accord bañ tribunal ko ba nga xam ne daanaka cinquante cinquante la woon donc su fekkee ne Sénégal dañoo am koo xam ne dafa am parti di sàkku pour nekk njiit. Mhm. njiit xerañ ca la bokk. waaye du xerañ rek jikko it ca la bokk. d'accord euh, euh, docteur nga baal ma xam naa ne foofu dinañ fa dinañ fa xuus boo gisee ma njëkk la laaj lan la yàlla wax ci ci tuuma ndaxte euh, tuuma lañ ko mën a gum mën tuddee ndax wax ji mu ngi doog a jug Ousmane Sonko wedd na ne deful dara xale bu jigéen bi waaye weddeegul ni daanul woon dem ci institut de beauté ba su fekkoon ne moom tey dafa def communiqué waaw ne man Ousmane foofu mosuma faa taxaw waaw mosuma faa bëslu waaw jigéen musuma bës ko sama jabar ci laaye moo may bësal yépp mhm. man ma wax publiquement ma ne ko Ousmane jéggal ma baal maax ak d'accord waaye nag bu loola saxee muy tëjoo ak jigéen te moom muy bërëmi jabar bu nekkuloon bërëmi jabar sax dana gën a oyof ndax kon àtte bi am dañ koy bàcc bàccee rek bàyyi mu dem mais xam nga institut de beauté nit mu fay dem euh, fekk euh, dafay. dafa fay mënoo maa wax atte institut de ma atte l'islam atte islam laay wax institut de beauté atte boppam la. <laughs> d'accord bàyyi dama ne la. Uh-huh. l'islam bépp góor bu am jabar. Hmm. wéet jigéen ci néeg ngeen tëj loola atte njaaloo lañ lay atte. kon yow daal jàpp nga ni Ousmane Sonko euh, fii léegi ñu ngi jàpp ne daan na dem foofu noonu. li mu def xalwatu gis loolu bu dee réew la comme Arabie Saoudite. waaw dañ koy rey dañ koy jam xeer ba de dee. réew yu koy appliqué du réewu jullit yëpp ñoo koy appliqué mais am na réew yu koy appliqué Iran ci la bokk Arabie Saoudite ci la bokk ak yeneen i réew dégg nga donc. Euh, est-ce que coow li lu nekkul li mu dal ci Ousmane Sonko. bu ñu wax ne yow wax boo bëggee wax boo xam ne dafay wane institut de beauté. boo fa duggee wéet jigéen kon léegi institut de beauté la du kër du ruq du leneen lépp ruq la. d'accord d'accord ma ne est-ce que. Euh, nekkul ne bul fàtte ne. waaw bâtiment ba ni ma koy ci ci photo yi ngeen publier bâtiment bu rose la. waaw kër gu ñu tëj la kooku de dama ne maison rose la boole ci. parce que boo dee jàng ci lislaam dañuy wax ne ci jamonoy jaahiliye jamono yi fi yonent bi. Mhm. yàlla yónneegu ko. ba bu muy am ay fanweeri at ak nangam ba bu ci ñeent fukki at yi bu muy matee. Mhm. dañoo amoon jigéen ñoo xam ne bu bëccëgee dañuy takk ay drapeau yu xonq pour wane ni fii jëfandikukaay la ku ñëw dal fii ñu toppatoo la ca la ca aju. bu dee guddi dañuy taal ay sawara pour ki nekk fële ci àll bi di ñëw seen leen xam ne ñooñu kër jëfandikoo la kon nag kër gi nga xam ne non seulement dañ koo tëj. ay jigéen di fa bësal góor mais su fekkee woon ne dafa amoon ku góor koo xam ne moom la fay fekk mu di ko bës kon wax amul. kon wax du am. d' accord d' mais est ce que du lim nekk Ousmane Sonko moo tax coow lu bari gisoon nañ fi ay jamono yële weesu Idrissa Seck mu ngi toog dem ci institut de beauté euh, xale bu jigéen di ko defaral ay tànkam pédicure di def pédicure manicure xale bu jigéen moo ko doon defal te du jabaram euh, te coow li jugul woon comme coow lii nii nim nim nim yow dafa mel ni yow da ngaa man boo mënta dégg doo mën a déggal nit ñi <laughs> waxuma daggi wee toog nii ñëpp toog ñu la daggal wee même bu dee loola lislaam rafetluwu ko waxuma nag ne santaane santaane la ko santaane wu ko mhm. rafetluwu ko toog nii jigéen la daggal say we bu dul sa jabar walla sa doom rafetluwu ko mais nag tëju tëju laa wax su fekkee ne mu dafay ñëw summeeku xam nga mhm. ke dagg wee am soxlool muy summeeku ki summeeku dugg ci néeg tëdd kooka jigéen di la bësal nga bàyyi fa say soxna mm-hmm. am nga problème ak yàlla d'accord euh, loolu euh, moom mooy waaw bi ci des uh-huh. su fekkee ne wax nañu ne moom dafay yore ngànnaay bu yore ngànnaay ki koy séen du ko xam mais bu summee ko hmm. buy àndee ngànnaay ngànnaay li feeñ waaw man damay wax ak comme nit ñëpp rek comme un simple citoyen gënumaa xelu kenn mhm. gënumaa mel lenn lu ñeneen ñi melul am na sax ñu ma gën a euh, ëpp ay xalaat ak yeneen ak yeneen d'accord man damay réagir comme benn citoyen sénégalais simple mhm. bu wax ne man duma rafetlu benn góor bu am jabar di dem di tëdd tëju karaj karaj ak nit pour mu jigéen mu di la bësal wala l'inverse itam jigéen ji am jëkkër mhm. bàyyi fii jëkkëram dem tëju ak góor te am na fi mhm. mu di ko bësal ñaar yooyu benn atte la su fekkee nag bu doon jigéen la duñ ko rafetlu kon bu dee góor itam duñ ko rafetlu d'accord euh, ndax l'islam amul lu jëm ci genre d'accord lu ñaaw ci jigéen ñaaw na ñaaw na ci góor d'accord jërëjëf docteur mbokk yi di leen fàttali ñu ngi toog ak docteur Ahmed Khalifa Niass ci li nga xamante ni moom moo xew euh, ci euh, euh, Ousmane Sonko président bu PASTEF moom la ñuy waxtaanee ah, moo ñu tax a jóg ñu génn tuuti ci cadre lislaam ñu wax ci cadre Ousmane Sonko ak Sénégal. kilifa gu toll ni moom euh, ak ñu ngi doon wax naan moom moo war a nekk leader de l'opposition tey ñu koy dégg ci euh, yenn yu mel ni ñenn ñi nee nañ campagne de dénigrement la ñenn ñi nee nañ lu ci mën a am euh, moom la personne de Ousmane Sonko warul woon def li ni mel lan moo ci sa xalaat. ci waaw man mooy loolu rek man daal wax dëgg yàlla. Hmm. wax dëgg yàlla nag ak lu ñu ñàkk a ñàkk ñàkk déggoo ci ci wàllu politique. Hmm. amoon naa un certain respect pour la personne. waaye nag nit koo xam ne dafay bàyyi ay soxnaam ak peut-être sax ak seeni doom di dem di tànn pour jigéen bësal ko te yàlla araamal loolu te moom ci boppam ñu gis ko ba tàyyi muy jàng ay laay alxuraan di génne ay hadis di jàngale mhm. ba sax man mii ci laa bokk ñu takse ko comme koo xam ne dafa am euh, dafa jegewoontoo Mm-hmm. ak euh, ñi nga xam ne ñoo ay fondamentalistes. parce que am na relation yu kii ak Farah am nañu sax euh, taalibe Amadou Lo la kii euh, waaw mooy kooku. Uh-huh. dégg nga kon nag kooku bu amee su fekkee ne dafa wanewuloon le visage. bu bu kii quoi pieux nga xam ne nit ku ragal yàlla. Mm-hmm. kuy def li yàlla wax di bàyyi li mu ko santaane kon duñ ci am problème ndax am na fii ñoo xam ne amul dara lu nëbb. dañuy toog di naan di tux di yàmba di. Mhm. def leneen ak leneen. Mhm. kon dana nekk moins. d'accord waaw kon dafay nekk moins. waaye su fekkee ne yow da ngaa am seetu seetu bi nga xool ci. Mhm. mu jël sa kanam gi nga gis ci muus. waaw wala janax wala leneen. kon seetu boobu du seetu bu jar seetu. d'accord seetu bi mooy li nga gis li ne ci yow muy lii génn ci seetu bi. maanaam reflet ki nga xam ne dangay ne bu deux mille vingt quatre damay ñëw nit ñi fal ma mhm. am na loo xam ne sañoo koo doxal d'accord nga man mii di wax ak yow tey bu ma jaaroon ci benn koñ boo xam ne baara nga fa te mënuma faa ñàkk a jaar hmm. damaa war a jaar ci trottoir bële waaye warumaa romb buntu baar bi d'accord te pourtant am na ñu fa ne di man te citoyen lañ ni man boo demee fii Lamine Gueye am na fa jàkka joo xam ne ci baar bi lay julli te donc loolu doy na pour tegtale maanaam dafa am loo xam ne li ñuy wax ñiy fas di fecci te alaakulli xaalin ca bokk am na loo xam ne dañ ko war a teggi borom bu mu mu weex du jaar ci mbedd boo xam ne suuf sa dafa am li ñuy wax botoxo waaw nga xam ne bu fa jaaree yéreem tilim war daf ko war a teggi wëri jaaree ji neneen man loolu rek laa wax su fekkee nag ne moom dem na di bés lu ndaw si ah. même bu fekkente ne liñ koy jiñ defu ko sax mais déedéet waxuma jëf ji loolu la nekk waaw man dama rek bu demee daf bàyyi ay jabaram di dem di bés lu jiniin di bés loo jiniin jigéen mhm. di tëjoog moom di summeeku pour kookoo war koo bësal waaw ah. loola dana tas sama respect ci moom man personnellement. bu moo ko respecté woon cent xëy na wàcc na ba ci trois. d'accord waaye quatre vingt dix yi moom daanu na. parce que. Mhm. foofu mu dem ñi nga xam ne woteel nañ ko euh, daf leen fab dafa tas seen yaakaar. d'accord parce que gëmuñu woon ne kuy bàyyi ñaari jabaram te kenn ka xëy na xaw ma sax ñaari dañuy muuru. Mhm. mu muuruloo jabaram. di dem di futteeku ci kaw kanam jigéen ba seet wecc pour kooku war koo bësal mhm. loolu moom diine rafetlu ko moral rafetlu ko règle sociale rafetlu ko d'accord su fekkee nag mu sufaa dëgg tànkam waaye waaye Sonko baal maaq <laughs> wala moom mu wax sax ne mosu faa dëgg tànkam. bu ko waxee man ma baal ko ak publiquement excuse publique laa koy jox. jërëjëf docteur Ahmed Khalifa Niass mbokk yi moom lañ seet si woon tey ci ci ci këram xam naa ne waxtaan bi du duñu jël sa temps trop dañ lay bàyyi nga euh, tàggatoo joxewaale conseil aussi euh, ci jamono ji ni mu ni mu ni mu jaxasoo nii ak looy conseil ñëpp ñi lay seetaan. waaw mooy mbas mi. Mhm. yàllaa ko wàcce nañ waaf ba mu jàll. d'accord waaw moytu. tere moytu bi nag terewul ko yàlla bëgg jël jël ko waaye moytu bi yàllaa ko santaane mu ne laatul ko bi aydikum ila tahluka d'accord bu leen jël bu leen jëm di viser euh, maanaam euh, danger bi mm-hmm. nga xam ne mooy mooy jàngoro ji bu leen ci jëm maanaam ñu mu wax ci alxuraan laa misaasa mm-hmm. am na jamono joo xam ne laalante du am <laughs> waaw laalante du am waaye ñëw su mboxloo ci biir mbooloo yi mm-hmm. dañuy bàyyi ba mu wéy d'accord waaw ñu ngi yaakaar ci yàlla suñu borom nag. ne mhm. incha allahu taala. Mhm. Euh, bu ñu euh, gëjee euh, génnee koor gi. Mhm. ñu gën a jege tëbaski rek. yàlla di ko di ko di ko def comme jant buy so day jóge ci tàngaay di sedd ndànk di sedd ndànk ba dem ba gisatuñ ko. ba dem jërëjëf cant ngërëm ñeel na la. Euh, euh, docteur Ahmad xalifa ñas ci dalal bi nga xamante ni moom la ñu dalal mbokk yi cant ngërëm ñeel na leen yéen ñi nga xamante ni yéen ngi seetaan ci waxtaan bii ñu séq tey li ko sabab mooy li nga xamante ni moom la ñu teg ci ndodd Ousmane Sonko euh, def na koom defu ko loolu leneen la waaye li docteur wax leer na nañ mooy le fekk moom mu dem ci institut de beauté boobu noonu nekk fàkk ay jigéen wala seeti jigéen pour mu koy bësal donc loolu lañ ñaawlu rafetlu ko. Euh, bu fekkente ne defu ko it na def déclaration moom bu ko waxee dana ko jéggalu bu baax a baax dina ko wax baal ma donc yaakaar naa ne wax ji leer na docteur ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di leen dig daje incha allahu rabbi ci yeneen i numéro di ñaan yàlla mi am jàmm tey borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla yàlla may jàmm tuur yërmandem ak xéwalam ci àdduna wërngel képp jaa ngeen jëf